ngelaw rek ngelaw lu tar lu sedd guy réeting tar tar dafa sedd aatiya bu noppi am doole lool saxaraha alayhim sab a layaalin wa samaniyata ayam juróom ñaari guddi ak juróom ñetti bëccëg mu ne ba mbir ma ñëwee nag wala maa jaa amruna najjayna hóodan hóod moom dañ ko caa musal والذين آمنوا معه moo ñëggamoon ànd ak moom sababu musal lu leen musal bi rahmatin min na ci yërmande ji bàyyi ko ci man moo tax yàlla loo koy ñaan rek ci yërmande ji nga koy ñaan bul ko ne ci barket kenn gis amul dara lu mu naan ci barket diw laa ko def déedéet ci yërmandeem ak mbaaxam moom lu muy def ci la koy def mun a bi rahmatin ci sama néewul ci barket bóot laa leen musale wala mbaaxam déedéet te bi yonent la waaye yërmande ja musal ga ñu ngi amee ci sababu yërmande yàlla bi rahmatin minna yërmande ju bàyyi ko ci man sama mbaax man yàlla ba tax mu ne wa rahmatu rabbika xayrun mimma yajmaun mboolem lu ngeen di dajale rek am yërmande yàlla moo ko gën yërmande yàlla moo gën lépp wa najjaynaahum ma musal leen min azabin ci mbugal moo xam ne xaliir mbugal la moo xam ne mu tar la mu foor la mu am doole la nee na ñoom mucc nañ ca mbugal mooma ñoom bokkuñu ci yàlla di leen ca aar bi naan inna allaha yudaafiu an alladina amanu ñooñu dara musal leen lu may iman bi rek alladina huudan walladina amanu maahu amanu maahu dañoo gëm ànd ak moom kon mooy kaaraange gi gën rëy goo xam ne su ko bi amee rek mucc na ci lépp lépp luy lor du ko jëm ci rek borom bi tabaraka wa taala ko ci aar mu ne wa tilka ñooñee nag muy famille boobu muy jiir boobu aadun mooy aad xabila boobu nee na mooy aad jaxadu dañoo weddi bi ayaati rabbihim aayay seen borom kéemtaanam yi tegtalam yi ñu ko mën a gëme dañ ko weddi waa taw rusulahu ñu mooy ay yonentam mooy yonent bi nga xam ne moom la yónni wattabao ñu topp nag amra kulli jabbaarin anid ñu topp mbirum képp koo xam ne ku fettéeral la ku rëy rëylu la nanguwut a topp dëgg maanaam seen njiit ya nanguwut a topp dëgg di rëy rëylu ñooña lañ defi kilifa topp leen anit ñu dër bopp ñoo xam ne bu ñu gisee dëgg duñ ko nangu nit mooy ko xam ne bu dëgg feeñee du ko nangu jabbaar mooy mustakbir koo xam ne dafa weesal ak boppam kenn di ko jàngal wala ken diko ko won ñu mel noonu nee na ñoom lañ dem topp leen ndax ñooy seeni kilifa wa utbiu gannaaw bu ñu leen alagee nag toftal nañ leen fi haadihi dunya ci àdduna ji laanatan ak móolu ah alku nañ ba pare te fu ñu leen tuddee ci àdduna ñu ne laanatullahi alayhim ndax ñooñu day dañoo alku nanguwuñu woon a topp ndigali borom bi wa taala moo tax adduna tudd bu ñaaw lañ fi am wa yawmal xiyaama ak yawmal xiyaama itam nag laana boobu muy móolu boobu da leen a topp adduna ak alaxira adduna fu ñu leen tuddee ci nit ñu baax ñu ñu móolu leen yawmal xiyaama itam naka doon mu ne alaa yëg leen ne inna aadan giir googu xeeti nit woowu ñu doon aad kafaru rabbahum dañoo weddi seen borom dañoo weddi nangu ñoo topp yàlla alaa yëg ne boo abdan alkande nag sori yërmande yàlla li aadin ñeel na xeetu aad woowu xaw mi xóot ñooñu nga xam ne ñoo doon nitu xóot mais nag gannaaw dañoo weddi yàlla nag ah alkande ak sori yërmande borom bi tabaraka wa sori lépp loo xam ne eh, ngëneel la loolu dal na leen kon loolu mooy li mu nekk li ci xista Huud alayhi salaam bokk na ci li ci jullit mën a jàngee xista bi day saxal tawxid bu baax liy tëraliinu suñu borom tabaraka wa taala ñu mujj ña mooy day yabal ndaw yu leen jottali leeralal leen suñu ko wuyoo topp ko dañuy bokk suñu texe waaye suñu ko wuyuwul nag suñu boroom dana leen ndànkal maanaam du leen gaaw a alak ba ba lay wa di leer nan ñi ci seeni bopp bañ xam ne léegi mbir mi leer na ku toppatul nag sag dëngte ak sag mooy yàlla moo la ko yóbbee waaye du ñàkk a leer foofaa nag la alkande ji di doog a ñëwee bu ñëwee rek dana musal yi nga xam ne ñoom gëm nañ yàlla dana ci gisee itam ne kii woote tawxiid jamono bu nekk dana jaamaarloo ak ñiy woote leneen danañ taxaw ci kanamam danañ ko tiital danañ ko xub kii nga xam ne ñoom lañu ñu gëm waaye da caa war a wane taxawaay bu leer nañ ci taxawaay ba nag mu bañ caa yëg boppam waaye lépp mu delloo ko ci yàlla na ko delloo ci yàlla am yaqin wan leen ne loolu waaye nag bu mu ca delloo dara ci boppam na ko delloo ci suñu borom tabaraka wa taala mu jàll ci beneen xista muy xista saalex alayhi salaam wa ila samuuda yabal naa ci xeet wu ñuy wax samuud axaahum seen mbokk ci walu askan salihan salih moy yelente bañ dabal ci ñoo al momit ci yelente yeb tambal rek الله ما لكم من إله غيره ين تبا مبقي ويتل لين برام بتبارك وتعالى جام جين جاي أم لين توسيق دخل ما لكم أم لين كت من إله بلين بور xayruhu budul moom bu ngeen bëggee jaamu leneen tam loola du boobu moom rek a huwa moom borom boobu di suñu borom tabaraka wa taala anshaakum min al ard moo leen fii ci kaw suuf leen fi indi andiwu leen ci seen bopp am na yeneen planète yu am bu neexoon yàlla ngeen dëkk foofa waaye suuf sii fi la leen dëkkaloo moo tax doomu aadama mënta dund budul fii gaa yaa ngi dem di seeti yeneen weer week yeneen biddiw yu bari seeti nañ ko waaye mënuñ faa mënuñ faa dund fii la yàlla programme ñu dëkk fi wa qaddara fiiha aqwaataha fii la programme dund gi tax ñu mën fee dund feneen duñ bëgg a demit duñ fa mën a dund gàncax guñ mën a lekk du fa sax ngelaw luñ mën a noyyi du fa am gis même bu ñuy dem dañuy yóbbaale ngelaw yi ñuy noyyi même bu ñuy dem ci weer bi dañuy yóbbaale seen yooyu ñuy boot ci seen gannaaw yooyu ci la oxygène bi ñuy noyyi di nekk bu jeexee foofa rek dootu fa la ñuy dee ndax foofa oxygène bi ñuy noyyi nekk mu ne wastaamarakum fiiha mu dund loo leen kaw suuf si mu dundal loo leen ko maanaam yéen war a dundal kaw suuf si suuf si fekk amu ci néeg ci yoon waaye doomu aadama ko war a dundal am ci kaw suuf yépp doomu aadama yi ñoo ko fi def loolu leen ci yàlla def loo loolu leen ci def ko war a dundal ko mën cee jariñu mën cee dund fastaxfiruhu na ngeen ko jéggalu gis nga fa yonente bee jaaroon rek moom la jaar jiital istixfaar teg ci tawba summa tuubu ilayhi jéggalu leen ko te ngeen tuub delsi ci moom mooy jéggalu bàkkaar ba ba noppi nag jógee ci fa nga doon defee bàkkaar ba mais del ci ci yàlla parce que boo nekkee ci yàlla mooy nekk lim la digal dootoo def bàkkaar ndax nit mën naa jéggalu bàkkaar bi mu pare waaye jógewul ci la taxoon muy def bàkkaar kon booba def na istiqfaar mais deful taw ñoom ñaar ñooy ànd toujours inna rabbi sama borom day qaribun ku jege la jaamam ñi ci yërmandeem ak xam-xamam mujibun kuy wuyu seenu woote la seenum ñaan la wa ida saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata daai ida daan yàlla boo koy ñaan lépp looy doxale ci diggante bi rek yaa ngi koy farfaril ndax ni la yàlla jegee amul leneen lu la jegee noonu sa ngay tudd ci nit yëgu la sax yëgul sax fa nga ne kon lu jegee la ba noppi nga di ko faril di ko wut foo koy jaaree kon kay ñaan ko directement rek moo mu ne fa inni qarib inna rabbi qaribun mujibun mujib qaalu yaa saalih ñi ko dode ko waa yow saalih xad kunta fiina marjuwan qabla hada yow saalih day nekkoon nga ci sunu di kunu yaakaar maanaam ku ñu yaakaaroon nga maanaa ci ñoom te nañ ko bëggee ci seen wàllu aada ci famille bi daal xale bu jub nga woon ñu am ci yow yaakaar lool lu jiitu ngay wax lii ngay wax xabla hada lu jiitu lii ngay wax daal yaakaaroon nañ la lool xale bu jàmm parce que bi yonente moom boo ko fekk day jub gis nga même yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi mu wootee yonente gi dong lañ ko commencé bañ mais lu jiitu yonente gi ñëpp a ko bëggoon tuddi ko Muhammadul Amin wóolu ko kuy dénkaane di wóolu ko gis nga ba ñuy xëccoo ci kaaba bi bañ ko tabaxaatee ne xajarul aswad ñu war koo delloo place am bañ nag caa xeex ba ñëwee dañoo daal ne ah kii moom doy na lu mu ci wax rek d'accord nañ ci parce que kon mbaax gi mu baaxoon ñu ngir préparé gi ñu ko préparé ngir yonent bi kooku moom ñëpp ko bëgg yonent kon ñëpp koy bëgg li ñu ko bañee rek mooy li mu leen di wax ne bàyyi leen lii ngeen di jaamu setu yàlla te ñëw jaamu yàlla moo tax ñu ne Saalix day yow day ko amoon ku ñu yaakaaroon nga ku baax nga woon lu jiitu ngay wax lii atanhaana an naabuda maa yaabudu abauna gis nga kon li ko booleeg ñoom rek mooy loolu atanhaana ndax da nga noo bëgg a tere an naabuda nu jaamu maa yaabudu abauna li sunu bàyyi doon jaamu waaw da nga noo bëgg a bàyyiloo li sunu bàyyi doon jaamu nit ñi dañoo bëgg aada lool bëgg cosaan lu seen bàyyi ak seen maam bu jubeeg bu jubul dañ koy defal ndax dañuy defe ne loola dépendre la seen teraangay famille la seen teraangay bàyyi ak seen maam ndax jàpp nañ ne doyee dal loola da leen a doyee dalaa la ñoom ñu ne ko wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib wa innana nun day la fi shakk nu daal danoo am sikki sàkk amunu lu nu leer mimma tad'una ilayhi ci li nuy woo muri day mbir mu mu mu lëndëm ci noonu daal mu leeru mu am sikki sàkk dañ koy am daal lu ñuy sikki sàkk daal leeru mu daal loolu daal moo tax mënulu la ci wuy xaala yaa qawmi mun leen waaw yéen sama bokk yi ara aytum xanaa gisu leen in kuntu ala bayinatin min rabbi fekk yéen da ngeen ci am lu ngeen di sikki sàkk man ma am ci tegtal yu leer ala bayinatin firnde pro yu leer yoo xam ne ci sama boroom la bàyyi ko wa aataat nii minhu rahmatan suñu borom jox ma yërmande ju bàyyi fi moom te mooy lim ma def ab yonent waaw su ma fi bàyyee nag loolu yàlla defal ak yoon bi ma jaarloo su ma yàlla di mbugal fa man yankuru nii ana kan moo may dimbali minallahi ci yàlla in asaytuhu su ma ko moyee su ma moyee yàlla ngir bëgg a jubóog yéen ba tax ma bëgg a reconnaître seen xërëm yii bëgg a ne am nañu njariñ ngir bëgg a jubóog yéen te man ma am lu ba noppi ci ne lii du dëgg su suñu borom di wàcc mbugalam ci man ana kan moo may wallo yéen daal fama taziduuna nii du ngeen ma dolli xayra taxsiir lu dul ak perte bu ma leen toppee du ngeen ma dolli lu may gën a perte rek gën a yeeyoo mbugalum borom bi tabaraka wa taala comme yéen da ngeen li daf leen daf leen leerul man mu leer ma man li mu leer moom dama ciy nekk waaye du ma leen wuy si ci seen li ngeen may woo ci ne naa bàyyee wax ne xërëm yi amul njariñ mun leen wayaa qawmi haadihi naaqatu llahi lakum aaya moom nag suñu borom da ko boole war ak jenn kéemtaan parce que ñoo ko ko ñaanoon ñoo ne ko woon duñu la gëm daal li fee amul kéemtaan koo xam ne dafa ñëw nu gis ko xam xelli ne lii moom ci yàlla la jóge waxoon na leen sax bu leen ko ñaan ndax bu ngeen ko ñaanee bu ñu ne ko daal na kéemtaan ji ñëw rek yàlla daal koy yabalal ak gëleem gëléem bu jigéen gëléem kéemtaan la gëléem bi bu ko kenn laal te teen bi ñuy naane bi bi ci gëléem ji naan waa dëkk bi duñu naan gëléem bis boo xam ne moom rek mooy naan kenn du sañ ci dëkk bi lahaa sirbun wa lakum sirbu yawmin maalum lahaa sirbun am na bis bu muy naan sirbu yawmin maalum naan bis bi muy naan nag bu kenn naan moo tax mu ne leen haadihi naaqatullahi lakum aaya kéemtaan la ci yéen fazaruha bàyyi leen ko taakul fi ardillah muy lekk ci suufu si yàlla lekk ci gàncax gi ci kaw di naan ci ndox mi bàyyi leen ko bu ko kenn laal wala tamassuha bu bu ko kenn laal di ko jéem a def lu ñaaw su ngeen ko defee kat fa yaqudakum dana leen jàpp azabun xarib mbugal mu jege jege jege te saasi ngeen koy laal rek mbugal di dem seen kaw ah ñoom daal ñu mujj na daal ñoom daal di ay ayloo ku gëleem daal ab naam daal ñoom xamuñu ko ñoom daal buñ bëggee rot dañuy rot waaye ñoom dañ gëleem rek nit ñëpp di di ko bàyyi muy naan moom kepp daal ñoom daal dañuy rey gëleem dañ koy rey ñu demee nag ba wër ko nag waaye nag kenn seenu fit ñemewul nag kenn ku nekk naan sa morom demal demal torga lañ ci moo tax mu ne idin baasa asqaha idin baasa jóg na asqaha ka ca gën a texee di ka ca gën a ñàkk sens kookaa jóg dem sor tànk gën a ñi asqaha dañoo naaqata allahi wa suqiyaha bàyyi leen gëreemu yàlla gi akum naanam فكذبوه فعقروها ني ويديكو ديم تور تانكيا العقر موي ديم يالي نين تاخو نك تول سي يالي بوب مودانو موي العقر موتا مون فعقروها فعقروها دا نيو ريك تور يالي جيلين جيلين بون تور يالي دوك مانا ديم فاموي نانا دي نانا داي تور فوم باتي بن كو دافاي رك فقال صالح نيرن كون تمتعوا في داركم آه، دم لين نين بالي خو سي سيني كير ngeen lekk ngeen naan ngeen nelaw salaatata ayam gën gaa bari ñetti fan ñetti fan leen def na ci àdduna yéen waaye wala ngeen dem lu ngeen mën a noot ngeen noot tamatta'u fi darikum salaatata ayam mu leen zalika lii ma leen wax wax nag waadun dig la boo xam ne xayru makduf du lu ñuy fen ñuy fen de fenuma tey yàlla du ma fen loo ñetti fan daal moo leen dese gannaaw fan ngeen gëleen gi léegi bu ngeen demee seen i kër daal lu ngeen mën a lekk bay bu ngeen lekk ko lu ngeen mën a naan bay bu ngeen naan ko lu ngeen bëgg a def bay bu ngeen def ko daal jeexal jëf tamatta'u fi daarikum salaasata ayyaam dalika wa'dun ghayru makzub falamma jaa amruna mu ne ba nga xamante ne nag sama ngir ñëw na te mooy mbugal ma te mooy yuuxu ga leen malaaka ya yuuxu wa amma tamut ko aussi ko bit ya kaddu goo xam ne bu xumb la moom lañ leen xaacu rek ñu daal di alku mu ne najjay naa saalixan musal naa saalix walladina aamanu maahu ak ñi nga xam ne dañoo gëmoon ànd ak moom parce que toujours iman bi rek kon ni ngay ànd ak moom mooy iman ngay ànd moom waaye boo ànd moom ci gëmoo itam kat ànd jëmm gi rek du la tax a waaye ànd moom ànd iman lay doon doon te seen jëmm bokkul fa mu nekk yéen a ànd ci iman bi bu muccee da nga waaye boo nekkoon ci biir këram di fa yeewoo ci gëmoo bu alkale ji ñëwee da nga cay bokkal kon iman mooy boole nit ak nit ci lu baax walladina amanu maahu waaye bi rahmatin minna gis nga ko moom itam ci yërmande ji bàyyi koo ci man moo leen musal de waaye du seeni pexe wala barkat faale wala darajaam waaye daal ci sama yërmande man yàlla ci laa ko musale moo ñi gëm ànd ak moom wa min xis yow mi is nee musal naa leen ci gàcce bis boobee gàcce ga am ca bis boobee muy alkande ja ñoom ñëpp ñu alku nee na musal naa ko ci moom njëgam inna rabbak sa borom day huwal qawi mooy borom kattan gi al aziz mooy ku tedd ci ci ngóoram nga xam ne lu ko soob rek mooy am mu ne wa axasa jàpp na alladina zalamu ñettoon yi as sayxatu yuux ga xaacu ga malaakaa leen xaacu rek ñun ñëpp ñu faatu fa asbaxoo ñu mujj jaasimiina di way góof fii diyaar yi ci seen kër yi ma nee na lafiin koo gis rek ma nga defeeru këdd sedd guy deeran di wàgg fa asbaxoo fii daarihim jaasimiin ka an lam yaxnaw fiiha mel ne mosuñu faa dëkk mosuñu faa sax xaniya bil makaan mooy aqaama fiihi mooy koo xam da nga faa sax fa nekkoon sax fa sax gu neex na loolu la wax xamee te àllam yaxnaw fiha ah, mel ne mësuñu faa nekk di dund dund bu neex dañ doon dund dund bu neex amoon ay moyen lool ndax ñoom nit ñu am doole la ñu liggéey lool dañ daan yett doj yi di ci def ay néeg wa tanxituuna min al jibaali buyuutan ñoom loolu lañ daan def moo tax di leen euh, te nit ñu am kattan la dañoo guddoon lool te am doole motax tax ñu doon wax nan man asad minna quwa ana kan mo lu ëpp doole mu ne awalam yaraw anna allaha allati qalaqahu huwa asad minkum quwa xana xam leen yàlla mi leen bind mu leen ëpp doole ndax doole gi ngeen yor mo leen ko jox ñom dañu jàpp ne kenn mënu leen ndax nit ñi gudd lañ woon am doole lool lu aw dog gëy gëy lu am am doole bu ñu ñëwee ñoom dañ koy yàq defar ci ay néeg yu rafet moo tax dëkkuwaay yu neex lañ amoon amoon ay tool waaye nee na ba yuux ga ñëwee dafa mel ne mosuñoo bànneeku mu ne alaa yëg leen ne inna samuda kafaru rabbahum gis ne toujours que tey ni ñu koy jeexale yëgal ne kat kii li ko yóbbee lii mooy dañoo weddi yàlla kon nag alaa bu'dan li samud gannaaw dañoo weddi yàlla nag kon yëg leen ne alkande toroxte sori yërmande yàlla li samud ñeel na eh, xeet nit woowu nga xam ne ñoo doon eh, samud ñoom it seenu xissa noonu la jeexe comme ne xissa xóot jeexe woon ala buhdan li aadin qawmi hóot fii mu ne ala bu'dan li samud te toujours da lay wax li ko waral mooy ala inna aadan kafaru rabbahum fii mu ne ala inna samuda kafaru rabbahum comme kafaru rabbahum nag ala bu'dan li samud kon nag képp weddi borom bi tabaraka wa taala ba mu àtt ci loolu alkane rek nga yéeru sori yërmande yàlla bu jàll ci beneen xista muy ibrahim عليه السلام ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبصرى ولقد جاءت ذكر رسلنا سماي ناو اي ناو اي ملائكه وخمي يالا دا لي يوني يور ملوكان نيت دي دوخ سي كاو سوف ذكر ابراهيم اندل كو اختبار بو نيه موي البصرى ديكت ديكت مي موي خمال كو نيت يالا دا نكو ماي دوم مون دافا امول وون دوم ولا ني امي تيمير اتاك لا كو امول دوم yàlla dañ yabal ay malaaka ñu ñëw ne ko pour xibaar xibaar si ko loolu malaaka ñoom dañ doon jàll sax ñoom ñu nga jëmoon ca fa loo dëkk pour alaji leen moo tax ba mu ne xaala fa maa xatbukum ayuha almursalun qaalu inna ursilna ila qawmin mujrimin waaw mu leen waaw yéen lu leen tax a jóg ñu ne ko dañ ñoo yónni ci ay nit ñu kastor li nursila alayhim hijaratan min tiin ngir mu sànni leen ay dëkk mu sawoo matan inda rabbika lil musrifin dëj yoo xam ne dañ ko mandargaal kenn ku nekk daj war a mu ne kon yabal naa ndaw yooyu ci ibrahim ndax ibrahim ak loot ñoo doon dund ndoo ibrahima ne ci bii dëkk ñoo nit loot ne ci beneen dëkk sore wuñu lool wax dañ ne euh, ibnu amam la loot euh, ibnu am maanaam ibrahim ibnu loot ibnu am am ibrahim la qaalu salaaman mu ne ji ñu ñëwee ñu nuyoo ne salaaman nuyu Ibrahim qaala salaam mu fay moom itam fa maa labisa sax moom aw ñamam daaw ko lekk te bokku ko gan saa bu aw ñamam masaa saa gën a wër ci mbedd ba gis gan bokk koog moom Ibrahima noonu la daan def daawul lekk moom képp moo tax nee na bi gan ñoo ñëwee rek taxawul dara rek mu daal di dem daal di lakk benn sikket lakk ko ci ay xeer moo tax mu ne waja bi ajilin wala aw aw yëkk aw yëkk wu aw mol bar mol yëkk wu ndaw mooy ajil euh, nag wu ndaw bar mol xanii boo xam ne lakk ko doj la ko lakk mooy ci ay xeer la ko lakk comme ni débiteur yi def rek ay doj la ñuy sansal ba mu sans nga xam ne tàngooru doj wi mooy yoral yàpp yi yàpp wu set wecc lay doon du ko laal dara du ko laal day set wecc doj yi moom la ñuy sansal sansal ba mu rek mu ne mel ak pour lay doon lakk boobu mel noonu la lakk nag wa ndaw woowu andil leen tegal leen mun gisee ñoom a aydiyahum mais ba mu gisee seeni loxo laa tasilu ilayhi egsiwul daal lay tiit ci seen mbir nag fakk na xamatu leen daal xamul daal ñii ñu mu kon waaw ndax yàpp wu noonu ba mu baax ngay gan dëkkoo fii képp ci dëkk bi kenn xamul koo jógee ndeme na sonn nga xiif nga ñu tegal la ñamu mel noonu laaloo ko daal lay tiit nag gis nga moo tax mu ne wa aw jasa minhum xiifatan daal lay yëpp ak ragal la leen di ragal dafa daal di tiit waaw parce boo ko berndeele nanguwu ko laal rek da xam ne kon gan gi duxul jàng waaw gan ñëw nga jëndi baax na baax na da nga ah mbaa yéen kon jàmm ngeen di dox da ngay daal di tiit waaw da ngay daal dafa daal di wépp waaye gis ñu daal koy gan ne ko xaaloo laa taxam ñu ne ko bu ragal fii taxu noo jóg inna ursilna parce que daal lay xam ne ñii góotul alkade alak alage dafa jóg a yabal ñu ne ko inna ursilna ila qawmi lut nun ci nitu lóot lan nu yabal waaw ci nitu lan nu yabal fii taxu noo jóg kon bul tiit jamono bi la wax loolu nag nee na booba soxnaan mi ngi taxaw soxna ibrahim wa amraatuhu qaaimatun soxna si mi ngi taxaw fa daxika nee na mu daal di ree ah xanaa dégg daal xam ne kon ñii ñoom mu ne fa basarnaaha bi isxaaqa ñu bégal ko ne ko suñu boroom dana ko may doom ji tudd isxaaq wa min waraai isxaaq yaqub te isxaaq moom itam dana jur joom ji tudd yaqub maanaam nekk na ci gannaaw isxaaq yaqub wax na ci suurat Maryam wa wahabnaa lahu isxaaqa wa yaqub comme ñoom ñaar yëpp lañ ko may mais nag kenn ki ñi ngi ko ko jaaraleel ci ki ci des may nañ ko doom di isxaq mayaat ko sët muy yaqoob mu ne wa kullan jaalna nabiyan wax ci suratu mariam ñun def naa leen ay yonent yaqoob moom moo jur yusuf moo tax yusuf rek lim am nekkub yonent baayam nekkub yonent maamam nekkub yonent maamaatam nekkub yonent yusufa rek moo am loolu waaw ndax yusufa yaqooba ko jur yaqooba isxaqa ko jur isxaqa ibrahima ko jur moo tax taar bi mu amoon kenn amu yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na genn wàllu taar lañ ko jox maanaam taar bi yàlla séddale nit ñi ñëpp da koo xàcc digg di jox genn wàll bi yusuf waaw moo tax gis nga ba ko jigéen ñi gis ñu ne maa haasa basara kii du nit in haasa karim ñu ne kii malaaka la waaw kii <laughs> mu tedd la doon nga taaram ba yóbbu na ko fitna ju métti métti waaw tax na ko tëdd tëdd kaso ay ati at ngir jigéen ñi borom sax yàlla nga am xéewal boo xam ne itam dana la juralaat fitna li naan siiwru jàmmi borom moom mooy waaye moom itam boobu itam teg na ko fitna bu méttee méttee nag وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا بنت جي بي سخنا سي ديجي ñu naan ko da nga am doom mu ne ah yaa way la saa man day toskare ñeel na ma ah alidu naka lay juree wa ana ajus te fekk na man am màggat la fekk man man màggat la na si boobu dañ am na juróom ñett fukki at ak lu topp ibrahima am téeméeri at ak dara wa hasa ba'li shaytan sama jëkkëram ngi ni nekk ab am màggat shaytan inna hasa la shay'un ajib yéen li ngeen wax lu yéene la nun ñaa nun famille bii man jigéen ji am naa juróom-ñett fukki at góor gi am na ñaar téeméeri at naka la ñuy mën a amee doom xaalu malaaka min amrillah ci mbirum yàlla mbirum yàlla dalaa bëgg wa barakaatuhu aleykum malaaka ne leen yërmande yàlla ak barkeem yàlla nekk ci yéen ahlal bayt yéen waa kër gi innahu moom yàlla de xamidun ku ñu kon borom bi tabaraka wa taala ne ko bul yéemu ci dem yàlla moom lu mu bëgg a def rek daf naan ko nekkal mu nekk ak màggat ak bañ a màggat yàlla moom su bëggee doom am loolu moom dafay euh, daal di am xam naa soxna si itam dana